Fenerbahçe euh, wala boog Fenerbahçe bu bëgg a euh, langaam tiku wala mu alaw tiku ci Arda Güler est-ce que merengue yi danañ ko nangu waaye nag mocceb li la di championnat bi foo la ko soxla championnat bi demandé ne bu xaajee ba affaire yi takkarnaase waaye ñoom nag yoru nu njëkk dañu bëgg ku leen aar Arda Güler ndax Arda Güler gis nañ ni Fenerbahçe euh, mën naa ñëw foofu di leen footballal tey jàmbaar la gis nañ ni mën naa doxal bu baax a baax foofee nag ma tooñ waa Fenerbahçe doo yor benn perle bu mel nii ci sa biir réew di international turki ngay toog di caaxaan ba club bii di Real Madrid coppate ko nga dem ba ci biir di jiima xool yoo xam ne di nga ba gone gi mën a ñëw football ci yow donte tamit da ngay ñaan dimbal xam naa ne yaakaaruma ni supporters yi merengue danañ la ko may gars yi gannaaw bu ma leen nuyoo siyaar leen bu baax a baax àndi beeg ñun Aladji Malick TV sport am na solo ci information wér te wóor yi ngeen fii taataane loolee gërëm naa a seen fay bala maa continuer information ma sàkk nag yow mi door a dab seen bi xoolal abonnement yi bu ci des ginnaaw yow ma ko def ba pare maanaam li ma lay ñaan rek mooy nga aimer vidéo yi ndax aimer vidéo yi c'est très important ci seen bi yow mi ñu bëgg a jàppale ci seen bi pour bu fekkee bëgg nga Aladji Malick TV comme ni leen bëggee ndax man yéen rek laay topp ñu continuer xibaar yi ci Lamine Yamal mi jàpp ni nag mi ngi doon jël forme di jël li nga xam ne mooy mbégte ak xol bu sedd guy nag ba mel ni galaas maanaam fi mu toll nii boo demee fa mu ne ko gu mbott sedd na guy moom mii di Lamine Yamal lu ma xam la nag ci kafaka di xam la ni kii di ab bi nag depuis ba mu ñëwee maanaam fi nga xam ni moo nekk Barcelone gis na ni maanaam bal bi nam koy doxalee ak contrôle yeeg physique bi lépp désormais maanaam dégg mu taw tawféex ak ci li nga xam ne mooy gone gi ni muy doxee maanaam daal jàpp na ne ci gàttal tu bu ma leen ko doon tënkal Lamine Yamal ànd mag encyclique ànd bu jaar yoon la ànd la boo xam mi ngi ci gis boppam tey mi ngi football meilleur te xoolam mi ngi sedd ci li nga xam ni mooy bi la équipe loolee nekk na tawfeex ci international espagnol bi beneen international mu nekk ñaar sax ñii nag xam naa ne seen photo bi boo mu sens ma nga Instagram euh, ci diggante Jude Bellingham ak kii nga xam ni moo nekk Alexandre euh, Arnold di pël bu ndaw mu andi leen nag ci entraînement bi nga xam ne joxe nañ ko ak seenu équipe nee naa leen ay xarit lan di fële euh, ca Angleterre. mais waxuma pompe terre Angleterre laa leen wax tey andiwaat naa Angleterre ak Espagne nee naa leen xëccoo bi ren moom daana diis trop ndax championnat espagnol bi wax dëgg yàlla nag bu dëgg dee dëgg. xaw ma lu mosoon a jël troisième quatrième mais fi mu nii moom mooy deuxième championnat bi ëpp lu nit ñiy seetaan ginnaaw Angleterre ndax yaakaar naa ne mi ngi ci xormbuj maa nag ma dem ci ñaari ponkal yi maanaam remontada bu ki nga xam ne mooy Saka ñëw ci kanamu kii la di euh, international euh, bi la nga xam ne mooy brésilien Rodrigo 83 bit si 76 bit loole di ko waral nag mooy kii la nga xam ni mooy paa bi. di entraîneur bu Real Madrid yi nga xam ne yaakaar naan gis nañ ni ma ngi koy doxal équipe boobee ba Rodrigo mënatul a laal bal loolee nag musiba la ci moom mii di international brésilien bi démb ci metre euh, euh, maître Abdoulaye Wade wala boog fële ca annexe ba demoon nañ fa Aladji Malick yi bi waaye nag fexe nañ ba njort ni euh, kii di Aliou Cissé remplaçant mënuñu koo xam lu dul ñaari match yi dafa jeex waaye ñaari match yi moom bu jeexee tag rek balaa yàgg ngeen xam ki war a remplacer ki la di Aliou Cissé mën naa doon nag Papa Thiaw ndax est-ce que gars yi duñ ko xool ndax moom Ah, teg ah, li mu war a mën a teg leer na wala léerul bu fekkente ne leer na mën naa am moom mu tudd mu jël loole di entre bu Sénégal ah, li nga xam ne nag mooy Atlético Madrid seen stade boobee tudde woon li nga xam ne daanaka moo Metropolitano léegi nag stade ba na nañ ko ndax alal ju bari di ay milliards yoo xam ni waa Riyad andi nañ ko Riyad Air Metropolitano loolu la tudd ndax bi bu nga tuddoon bu njëkk Wanda wandaa googee nag tippi nañ ko taf ca léegi lu tax loolee nag alal ju bëree bëri nag contrat ba yaatu na ndax fii ak 2033 lañ ko xaati ab contrat xam nga ni loolee wax dëgg yàlla at yu bëree bëri la est ce que loolee jigéewul sax maanaam ci gàttal lu toll ci juróom-ñeenti at sëngam yoo xam ne dañ koy ànd ak moom ci seen stade boobee nga xam ni léegi stade la bu yees peq entraînement Brésil gars yi nag andi naa ci ñu bëree bëri na ku ma neex laa andi andi naa Rafinha mi raf raf moom it xam naa ne doxantu na gundaandaat ba fële ca Brésil ànd ak mbégte moo xam ne nag gars yi lii moom bëgg naa ko ci ab équipe équipe boo xam ne ñëpp dañuy ànd di mu nekk ak Rafinha Barcelone loolee bari lu am Rafinha mi ngi seetaan yaa ko gën a xam moom mii di international brésilien bi nekk ca Barcelone nga xam ne fi mu toll nii ay passe kii bit la yoral di ko ca waxal ci biir li nga xam ne mooy kaa yi ah, tey ji nag gone yi nga xam ne ñoo demoon te ifoowa ba te jël na ko lañ leen jox ci ab tuuti na waaye nag mën naa baax na ci ñoom ndax kenn ku ci ne am na lu toll ci benn million ak genn wàll di prime yoo xam ne ñi ngi leen ko jox ñooy waa fédération staff beeg suyéer yéeg ñi nga xam ne ñoo demoon ñëpp kenn ku ci ne sa gafaka def nga ci benn million ak téeméeri junni seen xalaat ci commentaire yi euh, ki def loole nag mooy maître Augustin Senghor mi président fédération sénégalaise euh, bu football te démb ma nga woon fële ca jam ñaajo ngir si mu gaynde yi